الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi seetaan seen télévision Mourchid TV ñoo ngi leen di nuyooti fas yéene dellusiwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi ñu tudde ko firi xadis nga xam ne xadis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañuy jéem di ci xadis di ko di ko waxtaane ngir mu jariñ ñu jariñ xeet wi yépp incha allahu taala yàlla yàlla jàppale ba tabaarakallaahu ñu amee ko noona ki nekk sa waxukaay bi seen mbokk oustaz Dame Ndiaye mu leen di nuyu di leen ziyaara waaye di nuyu di ñaanal kër gi kilifa gi tabaarakallaahu directeur beeg ñëpp rek tabaarakallaahu ba si technicien yi ak caméraman yi ak képp ku lu mursid ñoo ngi lay ñaanal yàlla def di la ñaanal jàmm yàlla yàlla defal la jàmm amin ya rabbal alamin xadis bi ñuy ñëw ci tey day jëm ci lu ñuy wax al mu'minu ku gëm yàlla mooy kan ku gëm yàlla luy mbiram alhamdulillah ñu leen xadis bi incha allah doog seet lu man ak yéen qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu xayr wa laysa dalika li ahadin illa lil mu'min in asaabathu sarra shakara fa kaana xayran lahu wa in asaabathu darra sabara fa kaana xayran lahu sallallahu alayhi wa sallam xadis bi boo demee ci saxiixul muslim numéro 2999 dinga ko fa fekk insha allahu taala muy xadis bu wér allahu akbar xadis bi sanga bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba mu yàgg mu ni eskay eskay waaw ndeysaan ajaban eskay yéemu naa ci mbiram jullit al mu'min ajaban li amril mu'min waaye maa yéemu si jullit yi waaye ah sang loola yéem jullit daal inna amrahu kullahu xayr jullit daal léppam yiw la rek ndeysaan allahu akbar jullit daal léppam yiw la mu def rek am yiw hmm, loolu nag moom rek moo ko am loo def muy yiw am tuyaaba jullit rek ko am wa laysa dalika li ahadin illa al mu'min moom rek nag moo am damay bëgg a wax ñun ko acca leeral Muhammad leeral yow sang bi mu ni jullit day in asabatuhu sarra shakara fa kaana xayran la allahu akbar lisaan su yàlla defee ci moom ak fatax maanaam defal ko xéewal lépp mbaax amul benn problème xéewal yu ñëw ah mu sant yàlla subhanahu wa taala fa kaana xayrun la loolu day nekk xéewal yu mag ci ci moom maanaam nga am jàmm am lu neex am xéewal nga ni alhamdulillah nee na baatu alhamdulillah bi nga wax day nekkaat geneen xéewal tegu ci xéewal yi nga amoon waaye sant sant yàlla sant yàlla jullit day sant yàlla nee na boo sant yàlla cant gi nga sant yàlla dama ci dëgg man yàlla ba def laat la yeneen xéewal yu ëpp yi ma la defal lool wa in asaabatuhu darra su musiba dalee ci kawam nag musiba dalee ci kawam maanaa dara ñëw loo xam ne day saan du lu mu bëgg tudde ko musiba moom sabara ànd ak loolu lépp mu muñ fa kaana la mu dee mu nekk geneen xéwal encore ci moom allahu akbar musiba ñëw na am nga loo naqari nga ànd ak loolu lépp nga muñ te yàlla tax dina muñ gi nga muñ dama si dëgg man yàlla subhanahu wa taala ba defar sa mbir defar sa mbir muy nag ñaari ñaari baat yu mat a taxaw muy sant yàlla ak muñ allahu akbar jafe nañu de yombul de ñun ñun sénégalais yombu ñu waaw yàlla dalay bind def la fi ahsani taqwimin yow nit ngay jaamu keneen koo xam ne bala yàlla bind fekkiwu ko parce loolu ak nite la yàlla bind fekkiwu ko xamula woon sax nag bi nga amee njariñ la lay doog a xam waaye nga bàyyi fi yàlla subhanahu wa di ko jaamu moom nee na nee na na nee na doo nit doo nit doo na ma jox la samay xéewal jox la samay teraanga nga sant keneen allahu akbar bàyyi fi yàlla subhanahu doo nit kon nag sant yàlla yomb di te mooy lu xew nga delloo ko yàlla subhanahu sant ko gërëm ko moom ah yombul de am na jëf yoo xam ne moom yàlla rek lañ ci sant yàlla xam na parce que moo ko def nit nag nit loo defal ay teraanga moom war nga ko sant parce que man lam yashkuri naas la yashkurullah waaye cant gi nga sant nit nag dafa wuute lool ak sant gi ngay sant yàlla subhanahu wa taala war du bokk waaw beneen bi des mooy muñ muñ moom muñ moom ñun muñatuñu wala ngay muñ na ngay dem ba ñàkk pexe soog a muñ dara xew nga tànkal nit ñi sonal nit ñi tës tës dem ba ñàkk pexe ni muñ naa ah non loolu muñ moom da muñ ci ñàkk pexe waaye ku muñ te yàlla tax a sabru ay na sadamatal ula ba mbir ma xewee rek nga muñ jëpp jox ko yàlla subhanahu wa taala nee na googu muñ xéewal gu mag a mag a mag a mag a si jiji ndeysaan am na nag beneen nag jikko nag bu gën a kawe muñ te muy ari boo boobu itam am solo rida mooy musiba wàcc sa kaw non seulement da muñ waaye nga kontaan ca la yàlla def yombul de boobu moom jikko boobu ko yàlla defal moom jàppal ni texe nga texe ndeysaan nitu yàlla bi su yàlla benn nitu yàlla ndeysaan yàlla dafa xëy rek rey soxnaam soxna su bëggoon ndeysaan mu féete ko fu ne yàlla ñu sentir ni moom ko dafa kontaan ci mbir mi ni ku bég si mbir mi ah, bi yow ñu teg ci weer yàlla jël taawam bi mu a sopp yàlla jël ko ñëpp yërëm ko mu kontaan ci mbir mi bég ku ko xool xam ne kii dafa bég ci mbir mi waaw ñu ko awaa ah, bi yow ñu a ngi tiit ñëpp a ngi naqarlu ñëpp a ngi jooy mais yow daa mel da ngaa kontaan lu xew su san ne waaw mais foog ma kontaan parce que man am naa ñeent soxna yàlla bàyyi fi ñett yëpp jël kenn dong ah mais war na maa kontaan mu jëloon ñëpp fu ma jëm fan lay ndeysaan xool boobu xool boobu fikra bu neexoon yàlla mu jël ñeent yépp yóbbu pour ma si man dara waaye bàyyi na fi ñett yi yóbbu kenn gi kon kay damaa war a bég laa ilaaha sama doom yi itam am naa juróom-ñaari doom macha allah juróom-ñaari doom ñëpp tekki nañ yàlla bàyyi fi juróom benn yëpp yóbbu kenn dong damaa war a bég bu yóbbu woon ñëpp yóbbu wàlle ma nag lan laa ci man ah loolu mooy ariba eh, jikko bu jikko bu kawe la boo xam ni mu gën a kawe muñ kon na ñetti jikko yi daal xam naa ni yombul waaye ku mu nekk ci yow tabaarakallaahu eh, yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam yéemu na ci yow ajaban li amri ak maa yéemu ci kii man Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ni est xam ne bu amee xéewal sant bu amee naqar muñ non seulement day muñ sax waaye da si kontaan loolu ku koy ku ko man yiiwu naa ci yow sallallahu alayhi wa sallam su ko defee moom itam jikko la boo xam ni euh, am na solo ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel di sant xam naa sant li muy foor foor foor muñ moo gën a jafe muñ moo gën a jafe ndeysaan Sénégal mu ñëtuñu mu ñëtuñu loo naqari nga gaaw jël euh, sa téléphone wala réseaux sociaux yi jàmbat hmm? wax ko warta wax lu la neex bu dee lu daal sa kaw comme musiba comme comme comme comme alwafaat wala boog nga liggéeyoon dara mu yàqu nga tànqal nit ñi yëpp doogu muñ loolu moom ndeysaan taxul ñuy wax te nag gis nga sax nag yàlla yàlla ñàkkul fayda nag ku sa ñàkkul fayda nee na soo ñëwee ni man jullit laa ñëw bëgg dugg ci diina ji nee na foog ma teste ba xam ndax li ngay wax dëgg la ci yow walla déet te wax na dëgg association sax boo ci bëggee bokk am nay condition ba ma laak islaam ji afa xasiba naas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun mënul nekk wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibin pour yàlla xam jullit vrai vrai vrai vrai fokk mu natt fokk mu natt waaw fokk mu natt nga xëy mu teg la ay nattu di xool ba xam nooy def ndax sa ngëm dëgër na wala sa ngëm dëgërul kon nag lii tax ñu xam dëgër euh, ngëm gu dëgër bokk na si ay màndargaam boo amee nattu nga muñ te yàlla tax waaw muñ yàlla tax kon nag yàlla yàlla defal muñ yàlla yàlla defal ñu natt yi ñu man koy muñ tam woyofal ko nag tam tam woyofal ko nag waaw kullama waqaa min al umuuri nga xam ni bi iznillahi taala la wa taqdirihi wa qabla wuquui hada al amr lu xew rek da yàlla may xolu ñu xam ni lii moo war a xew moo tax yàlla xewal ko damay wax sama benn xarit ndeysaan maa ngi koy nuyu Moustapha Moustapha Ndoye ndeysaan sant maam góor dama koy wax ni ko àddina bi dafa mel ni match football bu ñu indifféré waaw match bi daw na ba yàgg yàgg na daw na bu yàgg yow nga toog si télévision bi yore match bi ah, yore yore sa commande jàkkaarloo télévision bi ndeysaan mënoo fexe fexe fexe match bi fekkee 2-0 mënoo fexe fexe fexe ba ba du nekk 2-0 yow mi seetaan match bi mënul nekk waaw penalty bu arbitre bi soufflé mënoo fexe fexe fexe ba du ko soufflé ndax suuf ndax ndax ndax jàll na ba noppi waaw àdduna bi noonu la mel en defeere la yàlla moom def na lépp ñun kay ñoo xamul li xew waaye lépp sotti na yàlla yàlla defal ñu jàmm yàlla na yàlla baal ñu suñu bàkkaar yàlla yàlla aar yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla defal ñu muñ defal ñu sant defal ñu rida incha allah taala ñoo ngi yemani foofu di baalu xàq ñëpp di jaare ñëpp seen mbokk oustaz Dame Ndiaye Diender moo nekkoon ak yéen ci euh, waxukaay gi ñoo ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala